waaw man du ma ñëw suba. di ma xool nu mu lijjantee loolu mënatuma lii sax. bon sëkkat ñu may manqué de respect. <laughs> Euh, ci euh, ci ay actualité waaw euh, mm-hmm, dinañ ñëw ci kanam tuuti mm. ci situation wu ay sénégalais yoo xamante ne ñu ngi bloqué ci frontière diggante Sénégal ak Maroc boobu ak léegi nag mu ngi bëgg yàgg. Mm-hmm. ñoom di xam le ni vraiment bëgg nañu ku leen dimbali mm. dootul xaalis dootul dara loo xamante ni am nañu. jëfandikoo ngir mën a ngir mën a euh, amal seen defal seen bopp yenn yi ils dorment à la belle étoile am na ci ñoo xamante ne dañu tawat te fi ñu nekk gis pharmacie sax boo jëndee benn tablette euh, médicament c'est un réel souci on en parle tout à l'heure inchallah voilà c'est vrai que euh, ñoom ils sont bloqués ci frontière bi depuis quelques jours déjà et que ñu ngi dund ay jafe-jafe dinañ ci ñëwaat on a des images exclusives yoo xamante ni dinañ leen ko won bu ca kanamee Bijou si va nous rejoindre de euh, de lijjanti ay lekk xam ngeen bisu moom du du lekk jëwam ma ngay grignoter euh, Barack Obama on l'aime tellement ah il sort son livre aujourd'hui euh, Bijou Ndiaye dinañu présenter livre bi euh, am na version française ah puisque livre bi day génn tey euh, mu ngi ko tuddee une terre promise xaw ma nu ñu koy waxee ci anglais malgré que I was in New York Barack Obama ak livre bi génn tey Bijou nous en parle RFI démb def na lëf ndax daa xëy rek annoncé ay nit yu dee président Abdoulaye Wade Ellen Johnson Sirleaf wax ni par exemple Abdoulaye Wade génn na àddina yàlla yéex Euh, ay euh, ay ay président Abdou Diouf euh, ay Lionel Jospin il vit toujours ah il vit toujours ils ont dit qu'il était mort donc bëgg la boo xamante ni ñu bëree ko naqar lu démb ils disent que c'est un problème technique bijou dinañu ko expliquer naka lay rédaction yooyu di liggéeye parce que souvent ñoom dañuy prévoir ah dañuy bind pour xaar loolu am donc c'est dem euh, démb ñëpp a ko naqarlu euh, ay kilifa yu bëri euh, ñu jékki rek jékki-jékki rek annoncé seen dee Euh, ci euh, internet bi ci seen site internet ñoom waa Radio France Internationale euh, on en parle on vous explique tout ça tout à l'heure ak Bijou Sy et yi nga xamante ne ñoo am ay jafe-jafe bitim réew surtout France pour renouveler seen ay titres de séjour on vous donne aussi quelques explications concernant jafe-jafe yi nga xamante ni ñoo koy am 10 heures loolu moo di xaar tey ci yeewu leen bi et on va ouvrir une petite parenthèse waxtaane delluwaat comme ni koy defee fan yëpp euh, li nga ni moo jëm ci xale yi bëgg a sànni dem ba kaaw di ko jaarale ci gaal yi euh, ay gaalu looco yoo xamee ni li mu faat ci ay ndaw euh, fan yi xam ngeen ni bëri na kenn ku ne ngi waxee boor ku ci nekk ak sa xalaat ñi génn ci télé yeeg machin ku ci nekk yaa ngi sensibiliser ba tey rek il paraît que am na gaal gu explosé ca Cap Vert. waaw bu explosé si Cap Vert on a appris la nouvelle même sur les sites ça fait 30 minutes ñu commencé di ko posté. Mm. il y sénégalais actuellement d'après l'état capverdien 80 morts moo amagu mais waxaguñu ñii ñooy sénégalais wala ñii ñooy parce que am na ay doomi Gambie aussi yoo xam ne ñoo ngi ci woon euh, muy taxaw seetlu bu ñu war a def parce que comme tu dis euh, sensibilisation bëri na mais ñun ñi nga xamante ne euh, dañoo nekk ci wàllum sécurité c'est vrai premier jour yi bi mu amee am na benn euphorie ñuy wax ne dafa metti mais suñu taxawee seetlu tuuti Baye Cheikh damay commencer xaw a jaaxle tuuti parce que da ngay gis ne <clears throat> dama ne li nga xam ne corona tey jëlu ko ci suñu ay jeunes mais gaal gi ak géej gi moo ngi koy commencé di jël alors la première question que je me suis posée mooy xale yi fu ne la ñuy jóge ci Sénégal Casamance Bawol un peu partout waa léegi na ma ne dëkk bi kañ la méttee benn métti bu toll boo xamante ne tey ñoom ñëpp ñu mën ko waxandoo au même moment on peut comprendre si benn koñ wala benn site nit ñi waxandoo ko. alors na ma ne peut-être ni mu tombé ndoo noonu na fii xale yi. di bëgg dem mais dafa tombé quoi. exactement tombé waral ay ay xale exactement tellement ñi àgg dafa bëri. fausse commune fausse commune. actuellement donc les informations sont en train d'être donc man damay wax ne Baye Cheikh nañu taxaw tuuti def attention moi je demanderai en tant que chaque fois apprenti sécurité dans le domaine na état yi wala CEDEAO def réunion wala euh, dise le plus rapidement possible ubbi enquête seen réunion yi la ñuy nekk takk seen casque yooyu dina rek mais mais y a urgence parce que tey su fekkente ne euh, damay jël benn supposition dañ ne tey euh, dafa dese yi nekk Europe moo bëri ba nga xamante ne tey am na liggéey yu fa am ñu xool nan lañ koy organiser de façon légale xale yi di jël avion ci ay signature yu leer su fekkente ne dafa am ñu dugg ci biir dëkk bi di di tabax ay gaal di di jël di recruter dans les quartiers di sensibiliser ak di gëm gëmloo nit ñi parce que vague bi dafa bëri cest à ni mu nekkee di def nii il faut ñu taxaw seetlu mm. ubbi ay enquête xool ci koñ yi xool ci tefes yi fépp foo xamante ne ñoo ngi fay tabax ay gaal jamono ji mm. y a ce qu'on appelle les les renseignements lu ma wax li xew si dëkk bi mm. euh, on a une très bonne sécurité nationale loolu kenn kenn xamante ne tey euh, si Sénégal la ñoo ngi fay tabax ay gaal wala mu am ay nit yuy dugg ci kër yi di gëm loo xale yi ne yaa des contrat parce que dama ne tey pour mu jalal la nga jël bateau def ci 150 nit def ci 80 nit est-ce que quelque part on les paye pas ñu am ay contrats à l'étranger pour ñu recruter xale yi. te dégg naa dañuy dafa am ñuy xam ñuy xampaate. da ñu xamp sa benn nopp. ah bu ñu demee xiif bu ñu am lu ñu lekk. man li ma taxaw rek ma li tax ma taxaw seetlu dama ne. puisque ah, oh. jógewul ci benn koñ ci benn département département c'est au niveau national et mhm. même Gambie un peu partout ah tey Afrique affaire baa ngi commencé di commencé di law donc nañ na autorité yi taxaw que ce soit les présidents de la CEDEAO ñu ubbi ay enquêtes su fekkee ne ya a des recrutements euh, clandestins voilà donc si c'est un autre marché que ñu taxaw seetlu ñi nga xam ne ñooy autorité yi s'il y a des recrutements là-bas qui se font ñu signer ay contrats yu leer oh. xale yi dem ci ay conditions yu sûres jël avion xale yi di dem oh, Yacine en fait certains certains disent que euh, xale yi daan nañ jël gaal lu bëri mm. mais euh, fasul comme nii parce que nee nañ depuis bi corona bi duggee dafa créer xam nga avec le corona y a eu des gens qui ont perdu leur boulot am na nit ñu bëri yoo xamante ne liggéeyatuñu et puis euh, économie bi tamit dafa ralentir lu bari donc dafa am ñu nga xamante ne à part parce que boo seetloo ci biir xale yi dem tu tu retrouves des étudiants en troisième année en quatrième année donc ce sont ce pas des têtes vides ce sont des têtes pleines qui mm, partent de am na yenn analyste ñu ne ñoom en fait c'est c'est euh, bi tax affaire bi gën a yokk gën ampleur. même si bu dee affaire bi amoon non c'est pas une c'est la cause qu'ils ont avancé. na nekk fait bi mais dama il faut ñu taxaw ci benn affaire c'est-à-dire c'est au niveau national et moo ngi bëgg a nekk continental c'est-à-dire est-ce qu'il y des recruteurs dans nos pays parce que corona bi am na ñoo xam ne yëguñu woon information corona soo waxee duñu takk masque ci ñun ñi nga xam ne ñoo ngi ci milim réew te li ñu sobe xëy na mooy peut-être dañ ne on est jeune on sonn damaa bëgg a tekki dootul problème social y a un y a quelque chose qui se passe et il est temps que euh, qui sont dans la sécurité ñu ubbi ay enquêtes s'il y a des recruteurs mais ñu jël leen à temps parce que li ñu nekk di ñàkk ci suñu ay doom suñu xoolee tuuti fi mu ñu jëmee euh, jëmul kër au delà de ça li nga xamante ne aussi ban nañu bàyyi ci taxaw bàyyi ci xel mooy euh, at nu mu mënti mel situation dëkk bi nu mu mënti mel je pense que face à la mer il y a une seule décision c'est de rester sur amul banqaas ce n'est pas la solution parce que tamit mënuloo nekk sénégalais nga at nu dëkk bi toll ak nu mu métti métti métti nga bëgg ne xëy suba teel bëgg échanger sa vie contre la mort donc am na ci loo xamante ne tey lii on wan nañ leen ko ça fait plus de vingt ans ñu ngi leen di wan li xew ci géej gi vraiment ñu ngi mais exe bu doon échanger sa vie rek ñu wax mais au nom de quoi ñu jël ay xale. des mineurs di leen yóbbu ci bi c'est que mag adulte moom moo mënul débrouiller la lay wax c'est-à-dire tey dañuy foog ne l'information passe dans ce pays am na ñu nekk dans les coins les plus reculés man su ma ñëwee ne la euh, am na ay recrutement dafa am benn feebar bu amoon fële ca bitim réew dañoo soxla ay recrutement dinaa la dugal gaal yóbbu la soo demee utal la liggéey mais y a des gens yoo xam ne xamuñu lii xew dañuy dem donc il faudrait que ñu taxaw seetlu parce que je peux comprendre dans continental il faut que ñu ñu ñu ñu ubbi enquête. bonjour bonjour dugg si <laughs> te parce que Yacine lu muy wax c'est vrai quelque part ndax am na benn xale boo xam ne yaakaar naa ni bi ñu gisee deseen touché na ñëpp c'est mm. l'enfant qui a qui avait 14 ans euh, moom papaam li mu wax bi muy dem mooy amoon na kenn koo xam ne daf leen ne su ngeen egsee ba Espagne mun nañu fexe xale bi dem itali pour dem football yi c'est-à-dire c'est des promesses comme ça des rêves comme ça ngay géntloo nit ñu nekk fii nga ne yow da ngay bëgg un avenir meilleur pour ton enfant et pourtant Europe instant bi ñu leen sax mm-hmm. coronavirus bi tollu na leen foo xamante ne taluñu sax di jënd ci ay migrants ñi fa nekk nii nii sax amatuñu liggéey waxuma laaj nag ñi nga xamante ne ñoo jógee fii war a dem amuloo papier mm. c'est la galère nekk dëkk te amoo papier amul dara lu ko gën a pire donc de grâce yoon yu baax yi tout le temps wax man tey information bi ma ko gisee dama foogoon ne bu njëkk bi la parce que mënu ma woon gëm ni amaan beneen gaal bu explosé nii ak lu ñu si wax nii yëpp pour man nit yi ñuy sax déglu wala ñu bàyyi ñu xel mm. ba nga xamante boo waree dem sa di réfléchir à deux fois mais après j'ai relu ma ne mais lii tay la en fait donc l'information vient de tomber c'est comme si mm. dañuy wax nit yoo xam c'est dangereux et puis ça rien boo demee foofu balaa ngay réaliser bay ñëwaat fii amaana sa sax yenn famille booy ñëw doo fait dama xalaat xalaat ba amatuma benn xalaat ma lii est-ce que le pays n'est pas possédé en fait est-ce que lii du œuvre jinne ou quelque chose c'est-à-dire ça peut ça drôle quelque part mais yenn saa yi da xool ay explication xool xool loo teg rek da nga naan mais lii warul mën a tax kii def lii lii wa parce que euh, quoi qu'on puisse dire nit ñi bëgg nañ seen bakkan quoi sénégalais également bëgg nañu dund hmm. bëgg nañu bëgg nañu nekk ci jàmm donc c'est trop bizarre parce que moi euh, dafa am koo xamante ne moom a gënoon marqué ci ñi nga xamante ne dem nañu ci ci gaal gi parce que dafa am benn gaal bu suux ñi ci ñàkk seen bakkan mu am ci koo xamante ne kuy liggéeyee poste la yàgg na fa et tout donc ça veut que am na salaire ah am am benn situation bu mën a tax mu yor njabootam yor yaayam yor papam et donc kooku aujourd'hui bu fa bëggee mm-hmm. bàyyi embauchement wam wala dara jël xaalisam def ko ci gaal sachant que mu ngi sacrifier vie pour dem man je me dis que gis yëpp jàpp naa ni. Mhm. am na loo xamante ni xëj na du lu naturel. il paraît enseignant bu ñu invité woon euh, info matin moom nee na am na ay collègues am enseignants yu doon mhm. liggéey yoo xamante ni dem nañu ci gaal yi. et c'est ça qui a ah. fait que je me suis mhm. arrêtée. mu mel ne dañ ma sujet d'examen. et je me suis dit y a des recruteurs y a quelque chose qui se passe. l'État n'a qu'à descendre sur le terrain le ministère de l'Intérieur n'a qu'à ouvrir une enquête. Mm. su dee dafa am di gëmloo ne y a des recrutements à l'international ñu ko. Mm-hmm. et que li ñu def ci corona bi sensibilisation haut en bas ñu def ko ba ci suuf ñu def ko ci li hmm. parce que on est en train de perdre nos enfants et nos voilà. frères et nos trucs. quand il y jot nañu def euh, deuil virtuel ak hashtag bii di Sénégal en deuil rappelez-vous période bi yëpp nit ñaa ngi jël euh, image euh, bi nga xam ne ni moom lañ doon partagé ci réseaux sociaux yi Facebook Twitter WhatsApp et tout ça ñu bëri partagé nañ ko ñu ci des def ko profil alors ki nga xamante ni moo ko initié hashtag boobu lee mu ngi tudd monsieur John et tu l'as rencontré. oui euh, on a eu euh, un petit entretien Pape parce que wax nga ko. Euh, Sénégal hashtag Sénégal en deuil hashtag what's happening in Sénégal dañ ko créé euh, pour li nga xamante ne moo di euh, immigration clandestine bi euh, hashtag what's happening in Sénégal c'était pour dénoncer lépp li nga xamante ne mooy trait ayant trait à li nga xamante ne mooy immigration clandestine et hashtag Sénégal en deuil c'était pour présenter les condoléances ou en tout cas compatir ak situation boobule donc on a eu un entretien ak ki nga xamante c'est des initiateurs di monsieur Dione ñu daal di ko déglu mu expliquer ñu euh, naka la def wala lan moo tax mu créer hashtag boobu avec un petit euh, élément boo xamante ne benn rescapé moo doon wax su ko defee ñu daal di ñëwaat wax si li nga xamante ne moom mooy révolution digitale boobu qui fait partie quand même d'une des premières ici au Sénégal dañoo am idée wu lancer hashtag le Sénégal en deuil bi pour rendre hommage victimes yi parce que boobu ba léegi y' a eu silence radio si si ñu ñuy diriger et tout donc man j'ai eu l'idée de lancer sa hashtag après voilà am na ay ñu bëri ñu ñu nekk di ma soutenir si loolu donc euh, combat bi du man kase Sénégal pour Sénégal bi yëpp la parce que ñooñu dañoo mériter suñu attention donc mënuñu leen fàtte noonu sachant que jëluñu gaal gi parce que dañoo dañoo bëgg xaru dara dañoo bëggoon dem juste ngir peut-être pour teral seen waajur donc ñooñu munuma leen fàtte mënuñu leen bàyyee noonu mu jàll ñi nekk sama ginnaaw bëri na am na ay infographe am na journaliste am na ay influenceur donc on est une équipe de six à sept personnes donc euh, waa ñi nekk ñi nekk sama ginnaaw bëri na mais je peux dire que man Sénégal bi yëpp a nekk sama ginnaaw parce que nit ñi ñi ngi may woowee instant yi fu nekk fu nekk ñi ngi ma fay woowee donc man je peux dire Sénégal moo nekk sama ginnaaw combat bu noble la ou pas man daal en tout cas xam naa ni li ma tax a jóg daal mooy wan famille wu euh, victime yi que ñu ngi fii di ma di leen masawu. bi ñuy jógee fii ñu ngi doonoon quarante et un personnes vingt neuf dax la na ñu si des ñu may wax ñu ngi nii ñoo bokk gaal ñii di dee ñu leen di gis nii jaxran man su ma fekkee li may wax waxuma dëgg am na ñu may témoigner ñu ngi fii ñii dee. nekk ci gaal gi ñaari fan ñu xam ne lii mi ngi bëggee ëpp loxo ñuy sànni sa moroomu jullit koo xam ne ni yéen a nekkandoo woon mu dem ba dem ngeen toog nii dem ba kii xiif mar rafle toog ñetti fan xaw ma ñeenti fan yoo xam ne lekkuñu naanuñu dañoo sànni ba sonn dañoo sànni ba sonn barki alxuraan barki sëriñ Saliou nga dem ba xam ne lii dara jaru ko am na ñoo xam ne bi ñuy dem tàgguwuñ seen waajur am na ñoo xam ne ba ñuy dem seen waajur ñoo leen jox am na si ñoo xam ne nii seen waajur amaana sax dañoo jaay seen matériel dem te à cause li ñu li ñu yaakaaroon nekkul. voilà et puis ay somme la yu ñuy dugal quand même pour jël gaal gi ay quatre cent mille ay mhm. cinq cent mille am na ci xale yu bëri yoo xamante ni seen ay wax sax yëguñu ni euh, dem nañ ci gaal gi certainement ñu bëggoon dem ba yegg euh, defal surprise xam nga dem yegg nag yaa yegg naa dafa neex mhm. yaa yegg naa yaa yegg naa tu vois euh, c'est compliqué ah. da ngay dem ba dootoo xamati sax loo ciy wax di nga boolee et xol bu tàng yërëm mbokk yi nga xamante ni ñoo ñàkk ay doom yoo xam ne ni duggoon nañ ci gaal yi et c'est c'est triste effectivement li nga wax li en fait c'est un sentiment mitigé moo xamante ne moom ngay am parce que d'une part tu es tellement révolté contre loolu et d'une autre part il euh, y a une partie de toi qui qui les comprend malgré tout euh, par rapport ak ku nekk ak sa dundin par rapport par rapport ak ku nekk ak sa parcours mais euh, li am te ma tuddee ko révolution digitale Pape mooy que ne ce n'est pas l'État qui a décrété un deuil national par rapport ak li xew ci immigration clandestine bi d'où la particularité de ce hashtag ndax liberté, le mouvement est né des réseaux sociaux. On a parlé du printemps a parlé de, euh, de la force de, de, de, des réseaux sociaux, de, de l'Internet. Aujourd'hui encore, Wane Watna, li nga xamante ne moom mooy doolewam à travers le hashtag euh, Sénégal en deuil wala deuil national. Euh, c'est parti de cette personne ou bien de ce d'un groupe de personnes boo xamante ne ils y ont cru internautes yi nag jàpp mouvement bi euh, euh, ne fële la juddoo Twitter ñu daal di décréter euh, deuil national journée noire le vendredi 13 novembre ñu def une silence euh, une minute de silence numérique avec tout un programme changement de PP e, donc euh, photo de profil avec des posts ku nekk def sa texte c'est une première en tout cas fii au Sénégal ñu gis autant de cohésion avec un grand mouvement d'ensemble en tout cas dans la famille du ma ne dans la famille dans le monde digital oui le monde xamante ne 60 ans la ñu am 50 ans xamuñu. ñoom tamit participer nañ ci affaire yi. moom moom moom moom moom moom sama papa. moom moom defe na xorom jàll la doon tudd moom profil am sax euh, lii bii xale yi def nii la def fan yi te yow bii ne la def bii ne la def deuil national deuil national moom xorom non tout le kaani sax laa ko bëgg tuddee fan yi ah c'est-à-dire ñëpp ci dugg et c'est bien yàlla parce que nit yaa ngi ñaan aussi voilà comme di coro euh, des fois doo sax xam ndax yëfu jinne la doo sax comprendre quoi beaucoup de morts comme ça ay ndaw parce que chacun avec ses raisons personnelles mais quand même euh, marqué que révolution digitale boobu daan na si am ñëpp àndandoo si ñëpp mm. defandoo ko et ça vraiment euh, porté ses fruits parce que tout le monde s'est prêté au jeu ndax affaire bi dafa montrer à quel point le touché nit ñi voilà yàlla baax na yàlla na yàlla sàmm suñu njaboot yi yàlla na yàlla euh, teral ñëpp parce que comme on dit souvent <laughs> dem ba tey ñu ngi koy wax même ay nit yu am liggéey am salaire et tout ça euh, danga ci gis ay nit yu da nga da nga leen di gis ñuy bàyyi dëkk bi di dem di dem beneen dëkk quoi bakkan moom jàmm la bëgg nag voilà jàkkan bakkan bakkan jàmm bëgg affaire yi moom tolluwaay la comme j'ai dit hier tolluwaay dafa xaw a doy waar euh, nit ki rek nit ki nekk ci tolluwaay moo la mën a expliquer réellement euh, li tax mu def voilà bakkan jàmm la bëgg su ko mënee am merci beaucoup en tout cas Mairie Bey xam naa on va continuer jumtukaayu xarale yi bees yi ca kanam ci li xew ci internet bi ce euh, euh, wax lii wax lële euh, ñu ngi jooy ay gaal yuy suux ay xale di ci jee di ci dee gisati ni itam am na yeneen sénégalais yoo xamante ni actuellement am nañu ay jafe ndax ñu nga ca frontière u Maroc ba fi mu ne dañu bëgg autorités yi dimbali leen calvaire yu doy waar la dund foofu Corambaar. effectivement El Hadj li foofu lay métti ndax. ñoom sax ci ni ñu ko waxee euh, wax xam nañ ni instant bi amatuñu benn koppar boo xamante ne yor nañ ko dañu dañu en fait ñii dañu jógee euh, Maroc ah. ñii jógee euh, Europe ah, ñu doon ñu doon ñu doon ñibbisi ñu doon ñëw Sénégal en fait te période bi ñuy ñëw en fait wax nañ ni consulat bi xamaloon nañ leen nii bu ñu ñëwee dinañ mën a jàll ak nangam nangam mais ah. il s'avère que dañu ñëw ba foofu mu am ay problème yoo xamante ne parce que dafa am ni ñuy woowee raza yi quelque chose comme ça dafa euh, daf dañu nekk ñoom di sàkku ay indépendance ak ay affaires yu mel noonu donc moo tax ñu bloqué frontière bi ba ñoom mënuñu jàll instant bi autorité yi rek ñoo ci mën a wax parce que ñoom kayit yi nga xamante ne amoon nañu ko foofu euh, foofule ca Maroc boo fa amee 6 mois pour génn fa ak yu mel noonu donc bu fekkee ni yàgg nañ ci frontière yi tey kayit yooyu valabletul donc fi mu toll nii tembe faw autorité yi rek ñoo mën a réagir xool ana naka la ñuy def a euh, ñëw ci réew mi parce que ñu dugg Sénégal te mënuñoo dellu Maroc ah. loolu aussi beneen beneen beneen problème la voilà dañu tagatémbe te ñu ngi bëgg yàgg ci ñoom am na ci ñu xaw a nekk mag am ci ñoo xamante ne dañu tawat fi ñu nekk amuñu pharmacie amuñu dara lu war a mën a tax a ñu mën a euh, faju wala jël yenn précaution yi mën nañu xool juste élément bi après ñu ñëwaat euh, dañoo diggoon benn liste bu nga xamante ne nii waa ambassade ak waa consulat ba Mauritanie ñu accompagner ñu ba biir Sénégal léegi nag ñu defoon liste bañ defee liste liste bi jotul woon ba yàlla def fan yii nii la sotti léegi nag tey jii la le 24 lañ départ le 24 ba le 7 ñu ngi ci àll bi boobaak léegi nii amul dara lu leer parce que ba ñëwee ba fii ni fii nii policier gendarme marocain yi téye suñuy passeport ne doo leen egg ci frontière bi à peu près quatre-vingt-cinq kilomètres parce que dañoo baare foofu ñu policiers yooyu ñoo fa baare léegi nag boobaak léegi ñi ngi déggante ak ambassade bi ak consulat bi mais dara lu leer te instant bi mënuñoo delluwaat ci dëkk bi ñun def parce que suñu kase yëpp périmé na parce que fii mar il faut nga def fi six mois mën a génn ñu renouveler la sa kase nga dugaat te ñi fi nekk ñëpp dépassé leen six mois instant bi mënoo dugaat tant que amoo kase bu bees kon instant bi ñu génn Sénégal léegi moo ñu arrangé di wax ni nag sonn nañ fi torop parce que hôtel yi ñu nekkoon ba ñu ñëwee début bi ñu ngi doon fanaan di fay normal mais bañ demee ba xaalis bi ñoroon jeex amatul luñ fay hôtel naari ku nekk xam nga seen tukko dañoo génn ci biti instant bi ñu ay tante di fanaan ak seddaay bi nii te ku nekk xam nga Maroc fii Maroc waaw di wax ni nag ngeen jàppale ñu te yàlla tax ngeen defal ñu solution ñu génn fi ñu génn fi nañ bëgg soxla ñu lekk soxla ñu naan soxla ñu fu ñu dëkk nañ fi génn rek loolu ñu bëgg parce que am na ay maire yi fi nekk ak ay paa yi nekk am ñoo xam dañoo feebar te yàlla xam na ni tey ji nii seen médicament yi fii gisoon pharmacie àll la fi nekk ni àll la quatre cinq à peu près kilomètres ñu ñaan nag ngir yàlla ñu ñu fi waaw autorité génn ñu fi ñu génn fi ci barke parce que sonn nañ fi torop sangu bu set muy ko ndox bi sam na xorom amul lekk fii amul ndugg amul dara bëri nañ torop à peu près man ba ma jëlee liste bi am na quatre vingt personnes yoo xam ne ñu ngi fii nii waaw ñu ngi fii nii nii nii nii actuellement am na ñoo xamante ni nii jotuñoo egsi dañ leen a bloqué ci yoon bi parce que Maroc dafa def confinement bu bees instant bi mënuñoo dugg voilà donc ci frontière u Maroc bi la nekk ñoom euh, ñu expliquer jafe-jafe yi nga xamee ne actuellement euh, ñoo ngi koy am et puis ñu ngi sàkku euh, autorités yi jàppale leen xam naa Adja Aïssata Tall Sall mi nga xamee ni moom la ñu fal bu yàggul ministre des affaires étrangères moom ak ñu muy liggéeyal xëy na ñu ngi ciy jéem di góorgóorlu autorité consulaire yi itam diggante Mauritanie nekk Maroc comme soreewul noonu xëj na ñu ngi am yu ñuy ruumandaat pour jàppale xale yi effectivement parce que ñoom wax nañ ni bi ñuy ñëw tel jour bu ngeen àggee ci frontière bi moom di ngeen jàll sans problème prévoir woon nañu benn liste def ci seen ay tour ak yu mel noonu ah. bi ñu àggee nag ba foofu euh, niñ ko waxee ñu ne waa Raza dañuy sàkku seen ay indépendant donc ñoom aussi dañu xaw a nekk ci bras de fer ak dëkk ak waa dëkk ba donc bokk na ci li bloqué yëf yi mhm. euh, instant bi ñu ne euh, ci semaine bi ñu génn am na ci jour boo xamante ne mhm. bi ñu ñëwee ba jël autorité marocaine yi ñëw nañ jël seen ay passeport ak yooyu vérifié ñëw nekkul ci liste bi delloo leen passeport yi ah donc aujourd'hui ñoom ñi ngi bloqué foofu xam naa ni lu néew ay fan dinañ fa def pratiquement un mois mu doon hmm. situation pour lekk pour naan ah. problème la parce que ñoom nee nañ am na ci ñi nga xamante ne jotoon nañu yor xaalis jotoon nañu loué fu ñu nekk ci alentour yi mais bu sa xaalis jeexee mënatoo ko ñoom ñëpp dañuy génn ah, parce que ñoom wax nañ ko naar yi duñ leen muñal dara donc bi ñu xamee ne amatuñu xaalis dañu génn ñii stade à la Belle Étoile donc am na ci ñoo xamante ne comme je l'ai dit tantôt dañu tawat donc ñooñu tey euh, amuñu benn moyen pour jox leen garab bu ñu naan wala lijjanti leen loolu benn problème la benn problème mooy comme li Bijou wax bu seen xaalis jeexee dootuñu am lu ñu lekk te fi ñu nekk boo ko xoolee xam ne àll la donc diggante foofu rek ak fi ngay demee wuti ji loo lekk wala garab boo naan est-ce que ñoom mën nañ ko dox mhm. loolu yëpp tamit ay jafe-jafe la yoo xamante ne ñoom ñu ngi koy dund ñoom instant bi nii c'est pas que dañuy euh, bi yi wala ñu ñu ñu ñu xarab leen juste ñu dimbali leen en fait waaw parce que dañu bëgg dañu bëgg ñibbisi te ñoom bu ñu bëggee ku ne am nga droit boo amee problème nga ñaan sa autorité yi sa dëkk ñu ñu dimbali la effectivement c'est ce presque loolu la ñu seetlu ci dëkk yu bëri euh, fii ni étranger yi nekk Sénégal des fois da ngay dégg ñu ne euh, waa ambassade France wala ambassade États-Unis bind nañ ressortissant yi fi dëkk mm. ne leen euh, lii ak lii am na comme par exemple temps yi maa ngi dégg ni ñu ngi leen di sensibiliser pour ñu moytu yenn zone yi mm-hmm. parce que bu ñu moytuwul dina am ay explosion et tout ça donc ku nekk am nga droit foo mënti nekk boo fa amee jafe-jafe euh, ci njëkk nga ñaan sa ay autorité dëkk ñu jàppale la effectivement effectivement en fait ñoom loolu sax la ñu nekk di sàkku mm. parce que wax nañ ko bu ñu ñëwee euh, euh, Maroc dafa am benn durée boo xamante ne bu ñu fa nekkee ci la ñuy am yenn papier xëj na yi permettre mm. bu ñu bëggee dem seen dëkk ñu dem ak ak ak yooyu mm. donc tey aujourd'hui durée bi nga xamante ne moom la kayit yooyu moom la tampon bi amoon comme ñoom ni ñu ko waxee mën nañ wax ne expiré bare na donc ñoom tey munuñu dugg Sénégal te dootuñu dellu Maroc loolu aussi beneen beneen problème la moo tax ñoom daal ñu ngi wéy di sàkku ci kilifa yi euh, bépp jéego boo xamante ne mën nañ ko teg pour euh, faire face à cette situation dimbali leen ba ñu mën a rejoindre si seen ay famille ñu def ko surtout en cette période de Covid nit yi bëgg a bëgg bëgg bëgg nekk quand euh, ci mbedd bi ci yenn conditions yi c'est un peu difficile donc on espère que seen kaddu dina àgg ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo di kilifa mooy par rapport ak li nga xamante ne moom moo di situation bi euh, parce que ñoom itamit nombre lañ bu bu bu bu xaw a takku euh, donc il faut vraiment ay ay ay jéego et puis le plus rapidement possible pour ñu mën leen dimbali. voilà donc loolu moo xew ca euh, frontière bu Maroc voilà ay mauvaises nouvelles rek depuis depuis depuis depuis depuis ce matin fan yëpp ay mauvaises nouvelles rek mooy am moi j'aime pas les mauvaises nouvelles oh là là j'aurais dû rester à New York moi moi j'aime pas les mauvaises nouvelles j'aime pas les mauvaises nouvelles ça me voilà ça me stresse ça me voilà quoi une seetaane bi naan ma fa la gënee bëri mais même bu fa bëree foofu au moins maa ngi sama sama sama dok njaago laa foofu xaw ma kenn lijjantiwuma dara xam nga moi j'aime pas les mauvaises nouvelles là j'ai envie de pleurer j'ai envie de retourner euh, voilà euh, euh, sous mes draps dans mes appartements parce que moi j'aime pas les mauvaises nouvelles dafay dafay metti ci xol quoi sa ay nawle sénégalais di am problème ñii di dugg ci ay gaal di dee nga jékki-jékki gis ay vidéo sa ay moroomu sénégalais ñu bloqué ci ay frontières du ñu am lu ñu lekk du ñu am fu ñu sangoo xam nga ça fait tellement mal mais bon euh, voilà kenn mënul wax lépp ndax inde bee suusandoo comme disait l'autre nee na Sénégal <laughs> dëkk bee toj ba ku ne yaa ngi wër sa damit dëgg la de problème bi dafa bëri de ñoom ñu ngi bloqué Maroc mhm. ñu ni ñu ngi suñu yëf de. waaw oh, ñu ngi dul wax kenn. <laughs> ñun ñoo raw blocage ca Maroc fi mu nekk nii mais yàlla baax na yàlla.